buñ buñ publier liste bi ba pare konté ñu tuuti waaw dama tëddoon dina la après ñu ñëw yéema ñu ma jógal nga seetaan kii bi euh, publication liste bi après si laa jug fekk sama xarit yi ñoom ñëpp toog foofu ñu ma ni am ñeneen ñu ñëwoon di seetaan affaire bi ak man après ba ñu waxee sama tour ma yëg contentement ñoom ñëpp ñu félicité ma Euh, yokku ma doole et ñu convoqué la nga ñëw fekk ci say mag. ci équipe nationale ban euh, naka lañ la dalalee. waaw waaw ñëw naa fi fekk naa fi samay mag ñu nga xam ni yàgg naa toog di leen seetaan ci télé bi yàgg nañ ma bégal ñëw naa fi accueillir nañ ma dalal nañ ma bu baax wax nañ ma que fii sama kër la. Eh, maa ngi jàng lu bari aussi si ñoom. lan nga yaakaar nga mën a indil équipe nationale bi moom euh, ma jàng fii moo gën a yomb ma indi fii dara dinaa dinaa topp si ginnaaw mag yi jàng après si lu ndaw lu ma yor su ma si mënee jàppale équipe bi ma jàppale leen si. lan mooy sa objectif gagné yàlla def na ne nga. Euh,